mbokk kon ni ma leen ko waxoon dimanche bu nekk dimanche bi weesu xam ngeen ne dafa daje woon ak li nga xam ne mooy feet yi ñu tëboon ko waaye taxul ñu bàyyi ne eh, dimanche bu nekk daañu dellu si wax ak yéen tey jii li ñu bëgg a waxtaan ak yéen mooy li ñuy tuddee ak màng ak màng ci wolof mooy eh, sàmm yoo dem nañu ba amatul ñax dem na ba amatul lu jur gi dunde mu seet berlu bërlu boo xam ne la jublu ci wàllu politique nag loolu dafa mel ne moom la ñuy transhumance ci français am na ñoo xam ne bu ñu bokkee fii tey bu subaa ñu bokk fa ca des waaye li indi loolu laa bëggoon ñu ñëw ci Sénégal dañu yegg ne eh, bu ñi man ne mag tuuti ci politique booba dañu daan discuter ay programme ñii ñu ne ay marxiste lañu ne ay eh, libéral lañu ne ay ba nga xam ne ci socialiste seen bopp sax diggante Lamine tago ak Senghor ñu mujj tàggoo boo fekk na boobu Mamadou Dia mi nga bu ñëw indi ay programme yoo xam ne daf ne coopérative yi nii lay tëddee mbay mi nii lay tëdde budget bi buñ ko tëralee lii lañ ciy jël jox ko ci bay mbay mi lii ñu jox ko ci sàmm yi lii ñu jox ko ci ñi nga xam ne mooy napp gi lii ñu jëme jëmale ko ci njàng mi ñi déggoowul woon ci li gën a am solo ci ni ñuy doxale réew mi ñoo bokkul woon ay për bërlu yu ñuy sàmmee ba nga xam ne dañ ku génn ci benn bërlu boo bay dem ci beneen bi sax dangay wax ak moom ne ko léegi man nii laa ko gisee kii ne nii laa ko gisee nga ne bu ngeen di déggoo dangay dagg fii ci sa bos ma dagg fii ci sama bos ñu déggoo ci li nga xam ne moo gën a am solo waaye tey jii politique gu Sénégal defe naa ne la ko tàmbalee ca euh, deux mille euh, dix-huit ba léegi. la ko tàmbalee ca 1998 ba léegi li nga xam ne moom la nit ñi di waxee mooy man lan lañ ma jox ñaata laa toll sama mbooloo nu mu toll ban poste laa war a mën a am bu ma ko amatul rek daal di jéggi tey jii kan moo ma mën a wax parti socialiste bi nga xam ne moo dem àndi ak président Macky Sall lan moo ko wuutale ak parti APR bu président Macky Sall PDS bi nga xam ne nee na ñoom ñooy libéro yi lan moo leen wuutale ak parti bi nga xam ne mooy parti socialiste tey jii ndax ba ñu tàmbalee nekk ci nguur gi ba léegi ci jamonoy parti socialiste ba ci parti président Macky Sall te est-ce que wuute nañu ci ni ñu gisee njàng mi est-ce que wuute nañu ci ni ñu gisee mbay mi. est-ce que wuute nañu ci ni ñu gisee càmm gi est-ce que wuute nañu ci li ñuy fay ñiy liggéey ci usines yi est-ce que wuute nañu ci réew yi nga xam ne ñoom la ñu séqal lan lañ leen di jox ak ñoom lan lañ lañu lan la ñuy jox ndaxte wuute nañu ci Afrique ni mu war a ànde ndaxte wuute nañ ci mbiru CFA bi dañ koo fi war a jëlee wala déet ñoom ñëpp doo dégg ñu xëccoo mukk ci li nga xam ne mooy mbiri programme li nga xam ne moom la ñuy xëccoo mooy sama koñ man dama bëgg ku ma fa defal dispensaire kii ne sama koñ moom bu ma demee ci président dana ma fa defal benn euh, usine boo xam ne xale yi danañ ko liggéeyee kii ne man benn tali laa doon ñaan président kii ne man euh, dama doon wut lii amuma ko euh, kii ne man man maire bi bu ma ko jëlee nii laa koy doxale waaye amu ci kenn koo xam ne man nga leen a tànn tey jii ci parti yi gën a mag yi ñuy wax ñu naan kii moom mën nañu wax ne bu ngeen déggee programme sàngam ak sàngam ak sàngam parti bii moo ko wax bu ngeen déggee programme ak sàngam ak sàngam ak sàngam ñu mën a xam bar parte ko wax loolu defe naa ne moo jóge ci Sénégal kenn waxtaaneetul réew mi ni ñu koy doxalee lan moo jiitu ci ay soxlaam lan moo jiitu ci li nga xam ne moom la ñu war a jëkk a def ndax défense bi lañu war a gën a financer ndax guerre bi ci Casamance moom la ñu war a jiital ngir ñu régler ko balaa ñuy waxati lenn ndax euh, mbay mi nga xam ne bañ ko tàmbalee ca jamonoy coopérative yi nga xam ne moom la président Mamadou Dia doxaloon ñu nangu ko ca ña nga xam ne ñoo doon béykat yi yenn ñu jox ko sëriñ see nekk ca gox ya yenn ñu jox ko ñi nga xam ne ay politiciens lañu la taxoon coopérative ba jóg ba ONCAD daanu sonar daanu ba ñu jaar ci ay politique gu président Abdou Diouf ñu doon wax naan réforme économique nga xam ne bitim réew moo ñuy wax fu ngeen di dugal xaalis ci seenum njàngale ci seen santé loolu yëpp déggatu leen kenn kuy werante mbir yu jëm ci loolu li ñuy wax mooy man jóge naa fii ma kii maako faloon léegi daal dafa mel ne politique gu Sénégal ci ñaari mbir dong moo dox ci diggante ñaari bërlu yi fi ngay sàmme ji fi ngay transhumé fi ngay jóge mooy ku bañ Macky Sall ku bëgg Macky Sall ku bëgg opposition beeg ku bañ Macky Sall loolu dong moo ëpp ci li nga xam ne lu ñuy waxtaane kon waru la bett kenn bu fekkee ne nit dañ koy fal fee ba pare ndax ña ko doon fal da dafa fekk ne bu ngeen jëlee fu mel ne Médina fu mel ne yeneen gox yi Euh, ña fa nekkoon dañu làmb fee ñu da leen déedéet mënuñu leen a jox nga toogal ñu fa ñu làmb feneen fa ba ñu mujj fa ci ñi nga xam ne soxla nañu woon leen ñu doon leen a jox seen i këyit ñu falu ca loolu kooku àndul woon ak yow tey àndul woon ak yow démb dafa am lu mu bëggoon ngeen bokk ku ngeen merendoo yéen ñaar te moom xañ na yow man ngaa bañ kooku fekk moom daf ko mere rek ba mu faloo ba noppi dem jubóowaat ak ñoom warula bett kenn li feeg delluwaatunu ci discuter réew mi lan mooy ay priorité am li nga xam ne moo jiitu ay soxlaam lan mooy soxla su jëkk si lan mooy ñaareel bi lan mooy ñetteel bi lan mooy ñeenteel bi ñu mën a natt kenn ku nekk ñeent yooyu wala juróomi soxla yooyu ñu seet noo ci taxawee ñu mën a wax ne yow yaa mat a àndal wala yaa mat woon gannaaw li feeg yëggunu ci loolu du def lu dul ku mu wut foo man a faloo dem falu ji fa bu bërlu boobu amatulum ñax amatul mboog nga bàyyi ko fa amatul déeg yow wa gese jur nga bàyyi ko fa ne fa ñug dem ci beneen bërlu loolu mooy transhumance amu ci kenn ci kuréel yi nga xam ne ñoo fi nekk tey ci ay parti ñoo xam ne xamuñu ñu jóge ci kenn ànd nag ñoom ci lu leer leer dem tey ñu ne bëggatuma leen ñu ne kon ñëw leen ma wuuf la bu delloo ca ñoom waruñu laa bett man daal noonu laa gisee mbir li nga xam ne moom la ñu wax mangue ñu di ko wax transhumance ci français